manam mbok ko ci si CFA 1 million 800 les gars c'est du job c'est du boulot allez bosser les artistes ne vous limitez pas ça ne vous ne vous limitez pas au Sénégal allez bosser dessiner faire de beaux tableaux vous avez de l'argent parce que bu ñu voulez, sax les Picasso bu ñu newoon tableau pour moom mu mu ko c'est des milliards. c'est des milliards c'est des milliards c'est-à-dire que milliards tamit do ko am ci fu job foog nga liggéey foog nga génne table bi nga génne li nga am léegi bu ñu paree saa yi hmm, maa ngi gis am na ku nekk si ginnaaw bi defar benn table. waaw def mel ni sa taalibe la sa élève la. waaw waaw waaw loolu loolu waa voilà loolu parce que euh, loolu bokk na tamit ci sama euh, sama ay projet mm-hmm. waaw parce que xam nga man. comme ni mu la ko expliqué man jotuma jaar école des beaux arts donc man dama ñëw dans le

fille la jóge daal voilà donc kii c'est un jeune du quartier il s'appelle appelle euh, donc il signe Tampi Daaru mhm. voilà donc ça fait deux ans maa ngi koy yore sama atelier moo koy formé bon ne ni macha allah mu ngi commencé première exposition ndaw waaw mais nee naa ko na euh, demagul fenn def daal ko mais nag mu nekk euh, aussi jeune bu courageux bu ma déggal voilà léegi dañ koy jox micro bi rek wala ñaar wala ñett rek maa ngi nuyu ñëpp et puis tamit di leen remercier seen teewaay parce que lii tamit euh, dafa baax euh, ci artistes yi dina tax bon ñun ñu xam ñu xam suñu gëdd ci réew mi daal bon. léegi bon man moom dama nekk grand bu baax grand artiste bu baax boo xamante ne. moom mii bon bu grand artistes yëpp meloon ni moom defe naa ñun jeune artistes yi kenn ñu gis ci mbedd bi te et puis kenn ñu yërëm daal bon dinañu jox suñu gëdd et puis tamit dinañ ñeme liggéey bi parce que boo xoolee aar bi même suñu famille da nga ciy nekk mais da ngay gis dañ lay ne yow li ngay def nii perte de temps la te demal nga jàngi métier walla menuisier wala te or lii métier la te métier bu noble la bon lii nag dafa nekk loo xamante ne bon damay naan grand bi fu mel ni moom

dama mën expliquer sa tableau bi lu muy wax. parce que man maa ngi gis tali gis ay mm-hmm. car rapide gis nit ñi di dal c'est comme si que yow ti donnes une leçon. Mm-hmm. explique. waaw bon lii scène de rue la quoi comme Dakar nu ñuy xamee suñu quartier yi nu muy bëree kii comme clando yi ak car yi bon ak bon activité nit ñi nu ñu bëree kii coxeur bi di xëcc client bi borom clando bi xam nga ak ak yenn kii client yi affaire yooyu naan xam nga. bon scène de Dakar la boo xamante ne bon moom laay représenté quoi parce que nit ki tamit li nga gis ak fi nga dëkk moom nga mën a wane daal. voilà léegi en parlant de li nga mën a wane. damay ñëw tuuti di la laajaat. sa diggante ak sa patron mu demee. comment vous vous êtes connu. waaw bon grand bi nag bon yàlla moom mën naa ne yàlla moo ñu boole bon man dama daan romb fii souvent di dem liggéey boobu maa ngi doon liggéey ci benn collège ñu naan ko collège bilingue. foofu laa nekk pendant sept ans di fa liggéey bon souvent su may romb damay gis grand bi di peinture fii ci biir atelier bi affaire bi neex ma trop quoi bon benn bés ma ne xaaral ma wax ko ni man tamit damay yëngu ci aar bi affaire yooyu noonu léegi ma ñëw expliqué ko mu ne ma ah bon lii moom liggéey la boo xamante ne moom doo du nangu bokk ak beneen liggéey soit da ngay bàyyi loolu nga sacrifié wu jël ko soit nga bàyyi ko nga continuer sa liggéey bon ba ma waxee loolu affaire bi nag di tourner sama bopp ma xam ne bon yii bu ma grand bi wax dëgg la parce que damay xool liggéey bi dafa dem ba yow day jël sa temps dootoo mën a ci sax defar tableau dootoo am temps pour dessiner doo am temps pour def ay toile bon ma daal di jël décision risque def demande pour arrêter liggéey école ba mais après gars yi directeur ba ma ne mais est-ce que li ngay def xalaat mu ko parce que yaa ngi gagné fii cent cinquante mille ba pare ngay xëy di bàyyi loolu pour benn liggéey ah est-ce que loolu dina la satisfaire bon ma ne ko bon man loolu laa bëgg te man moom moo sama kii daal moom laa bëgg moom laa opté comme liggéey daal bon nii ma décidé bàyyi loolu ba ma bi grand bi ne ma amul benn problème léegi mën nga nekk ci atelier bi bon nii la ñu yàlla boolee daal. waaw léegi. Hmm. yéen ñaar vous avez hmm. fait deux ans. Hmm. c'est pas deux bi. nan lay def des fois da lay def métti. waaw moom nan lay demee jàngaleem nu muy demee. waaw bon bi moom bon mën naa ne moom mosuma def lu métti nag. lu ñu nekk parce que jullit la bon moom tout le temps mu ngi may wan ni jullit jullit rek nga war a doon te et puis xam nga nit ku am koy xam kuy calculer nit la quoi tout le temps muy xool ndax que ni est ce que lu may def kii duma ko gaañ wala est ce que du ko amal ak xam nga loolu nit jullit dëgg moo ko mën a defaral jullit daal parce que nit kuy calculer est ce que man loruma nit bon jamono ji yombul daal bon loolu nag moom maa koy seedal parce que loolu jikkoom la ko àppal tout le temps balaa muy def day calculer est ce que du ma lor kii est ce que du ma gaañ est ce que lu def du ko xam nga loolu daal man pour man loolu rek mooy nit daal waaw dañuy faral di naan maître buy jàngal élève dafa am lu ñuy desal maanaam moom du la jàngal lépp hmm. est-ce que yaa sentir ni mu lay jox bagage yëpp bu joxul tamit wax ko ko parce que hmm. voilà quoi bon man man mou may jox bagage yëpp mais bagage yi dafa man mii sax damay sentir ni doo tëb tëb rek ñëw ñëw rek xam xam lu kii bi léegi foog nga foog nga foog ngay jaar ndànk-ndànk mu lay jox parce que dafa mel ni dafa mel ni kuy jàng daara doo tëb rek ñëw rek euh, mokkal kaamil bi bon foog ngay jàng di réciter ndànk mbar par ndànk ba nga mokkal ba nga kii nga commencé nag après nag yow boo demee ba ñor sax yow da nga xam ni ah man nag grand bi lu ma doon kii yëpp man na waaw loolu la daal en tout cas bon xam nga tamit àdduna parce que man mooy li may gën a dolliwaat di wax mooy que ni na grand artistes yi jàppale jeunes yi may leen seen sens bon boo yoree atelier wala nga am espace am moyen xoolal jeune boo xamante ne kii mu ngi sonn ci aar bi mu ngi ci am nga nga xëcc ko jox ko yow sax xam-xam bi nga parce que tamit loolu mooy àdduna daal waaw di leen jaajëfal la. voilà léegi yow pare na mm. nga ne da nga dem ba troisième si

parce que bon suñu borom moo lay guider yow da ngay dem rek mais li ci des suñu borom moo ko yor mais ba ma demee ba xam ne man lii nekkul moom laa bëgg te aar bi laa bëgg après dama sacrifié wu bàyyi lépp bon jël concentré wu ci aar bi mais xam naa avec le temps dinaa jéem a def ay cours yu ndaw pour mun a jàngaale xam nga pour mun a communiquer ak nit ñi xam ni ngay échanger ak nit yi bon loolu la daal léegi yow pare nañ ci yow. waaw merci jërë ngeen jëf ñëwaat si yow côté léegi nga si yow boo demee ba pare tableau bi ñu xoolaat. ok maa ngi dégg sa sa sa élèves yi di wax du doy waar. yow moom dèjà jullit nga. yow ni ñu koy jàngal. comme ni nga waxoon sànq affaire yi yombul. yow dafa mel ni yow da nga jël benn booy rek. sol ko yow li nga yor hmm. est-ce loolu la est-ce que loolu tax nga indi ko fii wala lenn est-ce yow da ko indi fii pour jox ko lépp lépp li nga yor parce que laaj naa ko naa ko est-ce que yaa ngi koy jox lépp mu ne ma yaa ngi koy jox instant yi lu mu gis hmm. foog na ne yaa ngi koy jox lépp hmm. est-ce que jox ko lépp parce que dañuy loolu am na waaw mais xam nga euh, maître bi moom daf lay gunge rek juste pour wanal la sa ay début sa ay technique yi nga war a def et puis naka nga war a comporter parce que ëllëg tu es appelé ben bés mun nañ la à l'international, comme man nu may dem foofu man maay nekk maître de cérémonie bi par exemple damay ko parce que par exemple euh, bi ma pour la première fois ñu yóbbu ma ci benn musée bon musée bi imagine-toi Herzl la en Belgique donc bi ma yeggee foofu man luma ma étonné moy dañ mëna écoute fii

man dama waroon continuer. waaw léegi dama ne léegi. waaw foog ñu toogaat. waaw waaw di rappeler gars yi rek. que dañuy lii bii fausse épisode bi la. maanaam épisode premier bi la. léegi dañ koy def benn séquence. après ñu demaat foofu noonu nga waxoon sànq. waaw waaw waaw dañuy demaat foofu. gisaat tableau yi. gisaat lépp. pour nga mën expliquer li ngay wax. waaw léegi dañ ko yemale foofu. sur internet Sénégal TV. Hmm. direction Ngor. léegi ñu dem xool moom lu mu fa def. Hmm. mu expliquer lan moo ko yóbbu woon Belgique. Hmm. ak fu muy wax. au niveau international. jaa ngeen jëf et tout Tukulóor. waaw man xaar Pulaar laa. ah mooy yeneen sax bopp laa. yeneen yeneen foofu